benn problème bu am ci circulation bi ci diggante benn commissaire police ak sunu benn chauffeur ci terminus 42 ak 44 ci wokaam xañ na sodi bu nekk foofu dafay marché oto xaw a manqué fu ñu taxaw ñu débordé ba am ay buntu kër yu ñu baare commissaire bi génn këram ànd ak soxnaam soo xam ni policier la comme moom ñu war a dem liggéeyi ñu fekk oto bi taxaw baare leen ñu ñaan chauffeur bi ci liñ ma nettali xañ na chauffeur bi yéex na joxe réponse am mu génne carte won ko ni ko policier laa jox ma sa permis kooku yëkkati permis bi jox ko yëkkati permis bi jox ko mu jox ko jabar ji après chauffeur bi daal di teg pression foofu ak régulateur bi ni ko lu tax nga di ko jox ci loolu nañ koy xëccoo ba permis bi damm seen syndicat ñëw ñu leen continuer leen taxaw ñu waxaat yeneen lignes yi ba lu toll ci sept lignes ci Daaru Salaam ñu taxaw depuis sodi ba léegi. suñuy travailleurs dañ ñoo bëgg a not ak seeni syndicat ba def suñu alal armu di ko xeexee ak suñuy policier di ko xeexee ak sunuy gendarme di ko xeexee ak suñu état di xeex suñuy client suñu alal jël leen di leen liggéeyloo di leen fay. te saa yu leen neexee ñu koy gaare suñuy oto ci heure bu mu leen neexee waxtu bu mu leen neexee loolu dootu na ko nangu tey dootu na ko nangu ëllëg cap gi nii taxaw moom yore exploitation bi jël na usine def na constat yi yëpp manque à gagner bi yëpp def na ko suba incha allah daañu jébbal procureur de la république plainte bi pour mu arbitrer ba xam lii suñu travailleurs yi def ndax am nañ ci sañ-sañ wala amuñu ci sañ-sañ. bii nag mooy deuxième fois. defoon nañ ko Kër Massar ak commandant Kër Massar bi gaare ci ligne 63 ñu négocier ak ñoom te jàpp ni suñu njaboot lañu tey ñu ñoo defaat ko au niveau de Wakaam te dara waralu ko nag lu dul mag mu war a doxe nu mag nekk ci seen biir di wax wax ju mag ju war ta wax da ngay moytu muy taal am réew parce que loo man ci réew mi wax ko ba yàq réew mi nit ki mën na lu ci raw ba def ko ba yàq la yow ba dootoo ci wax kon dafa tollu foo xam ni ñun ñëpp dañoo war a bàyyi wante xel démb dem na mbaaw ni borom oto bi ñëw fi moom buy sos ngir am lu mu bëgg ndax am gëdd ci réew mi waru kaa wute ci doo xamante nii dañ koy tereb jullit lu ne la jullit war a def ba mu des lu dul wax dëgg kon bu ñu demee ba ay samba sura baale yu tekkiwut dara yow jaar ci transporteur mu def la chauffeur ba nga xëy doonub syndicat nga ne transporteur yi ay mbaam àll lañu yow fasu àll nga parce que suñuy loxo nga jaar kon dafa am kàddu goo xam du kàdduy nit mag day wax wax ju waxu kon bu ay nit jógee bëgg a jaxase nit ñi ci ci nit ñi euh, transport bi ak population bi man mi ñuy taxal am naa droit taxaw wax na lii ñu wax dara amu ci man taxaw naa la ma war a taxawee maa ngi ciy dox la ma ci war a dox yoon nag ñëpp la fi nekkal man du ma procureur du ma siis du ma gendarme du ma police ñaan rek laa man maa ngi def li ma war a def lépp mais li am solo nañu jël oto yi jaamu yu dem liggéeyi